parce Sané nga ne. non ma ne terme transhumant bi moo ko metti ay nitam nee nañu lañ koy traité de candidat. waaw c'est vrai il est de la du parti socialiste il s'est retrouvé apériste. waaw léegi loolu ñun luñ ci def luñ ci mën. c'est la vérité il faut l'assumer ah, mais souvent les transhumants. mais est-ce que ñun pour des questions politiciennes. oui ñun c'est à nous de payer les pots cassés. parce que liy déroulé fi mu nekk nii c'est des politiciens. oui qui se crêpent le chignon. non damay wax damay wax benn benn affaire euh, awa yaa ngi wax euh, que gars yi dañuy ils se crêpent le leur chignon mais damay wax ne waxuma sax qu'ils se crêpent leur chignon ils sont en train de nous injurier nous sénégalais yow ak man ak keneen ak keneen ils sont en train de nous dire allez vous faire voir ailleurs allez vous faire foutre quand je regarde le rapporteur xam nga sax nu mu tudd qui parle à l'assemblée pour dire lii maanaam il il au peuple en fait lii metti seen bi tey tey ngeen koy mais c'est-à-dire que foofu pour man même les députés yi ne woon de wii de et des autres de l'opposition mais à un moment donné c'est-à-dire il faut ça prendre sa responsabilité même en interne et dire merde à certaines gens certaines personnes yi nga xam ne amuñu wet ci askan bi nan ngay xoolee assemblée nationale ñëpp di la xool nga xool sénégalais yi ne xool li leen di metti tey tey ngeen koy dund nee na day wax ak un député de de de Guy Marius xaw ma kan lay waxal mais en fin de compte il nous parle à nous kooku respecté Quand Amadou Sall traité de on ne sait quoi le président Macky Sall Moussa Diakhaté j'insiste ci débat yi ma ko mujjee gis cest damay yéemu ci yàlla quand je l'ai regardé parler aujourd'hui j'ai dit mais mais nit a mën a nit a yéeme nit a mën a bon na mu mën a baaxee la mën a yéese am askan am ay bokk ñu yaakaar ne fu baax nga bokk te gëw ma ni nit nit war naa mën a léeg-léeg ñu naan non euh, nit dafa jaay ngorom kenn jaayul ngorom dafa new woon la réalité aujourd'hui nag mooy benn xool leen xool leen ah, Pape xool leen quand vous coupez l'internet vous bloquez le transport de ceux-là qui ci internet je pense à Itch et Yango ki qui vont plus travailler vous bloquez le boulot de ñiy def transfert d'argent à gauche à droite am koo xam ne dépense am suba 5000 francs bu mu war a retirer la mu mënul dem jëli ko parce que xamul ndax ñëw na wala ñëwul leeru ko jotul code parce que internet dañ ko bloqué données mobiles Vous pensez que monsieur Bokar Thiam, vous êtes aussi méritant que cela Vous n'êtes pas responsable, même. Mm -hmm. Je parle à Moussa Bokar Thiam. Il n'est pas responsable. Il ne mérite pas d'être ministre de la République. Des décisions aussi fallacieuses et ignobles, vous dites à l'endroit de tout un peuple, peut-être Internet, nga bloquez l'économie nationale, vous pensez que vous êtes talentueux. Là, vous avez droit, vous J'ai aucun respect à son endroit. d'accord ñu ñuy continuer rek euh, Georges di wax ne au Sénégalais la voix des sans voix seen moomeel la du moomeelu kenn defe naa ne ah, ndono gi amoon ñoom ñi nga ci kon suñ jëlee seen moomeel comme je dis rek dëgg moom kaani la kooku tuuf mu toxoñu te comme que Walfadjri mooy waxkatu dëgg bi suñ leen tëjalee liy wax dëgg ci euh, anam gi dëkk bi toll tey jii ñëpp ñu bëgg leen ko nëbb. c'est à vous de dire cest dire bi ma liiree le communiqué la mm-hmm. quand il parle de euh, des images montrant des adolescents accompagnés de propos subversifs haineux dangereux portant atteinte à la sécurité de l'État l'intégrité territoriale la stabilité à la paix sociale violation totale de ses obligations mais moom xanaa. en tout cas pendant tout le temps que man de si sur le plateau xam naa ñoonu àndal mhm. sa man de dégguma kenn ku ne sénégalais yi wàcc leen si mbedd mi man de dégguma ko. je l'ai suivi de dégguma ko. dégguma ko te waxuma ko dégguma keneen wax ko. pendant tout le temps qu'on a fait sur le plateau hier donc moom ñun lu ñu doon lu ñu doon wax lu ñu doon commenté mooy lan mooy li xew mooy projet de loi bii nga xam ne moom lañ yóbbu assemblée nationale pour annuler élection yi. loolu loolu dañ doon commenter et on a on a le droit de le faire on a le droit de <laughs> s'indigner comme tous les Sénégalais comme les 18 millions de Sénégalais wax naa ko démb peut-être que nous euh, suñu liggéey moo tax ñu mën a ñëw di ko commenter mais je crois que tous les 18 millions de Sénégalais avaient la même position que nous et je sais que les Sénégalais aussi ont la même position que nous jusqu'au moment nous parlons loolu nag lañ wax loolu man wax naa ko waxaat naa wax naa ko wax naa ko waxaat mooy aucun journaliste aucune de télévision et de radio n'a le droit de d'applaudir, comme on dit de façon triviale. Malheur à ceux-là qui, qui rigolent pendant que l'on kenn warul am droit de te taire alors xam nga ne luy xew Sénégal àdduna bi yëpp a koy wax yow loolu di xew fii Sénégal ngay teg ay musique wala ngay teg xaw ma lan ay ay lamb chose comme ça encore quand il dit que c'est le le président le PDG il était là Cheikh Niass appelle le peuple à combattre dans la rue tout en traitant le tout en traitant le président de la République de Mos mais ce ce ce titre de monstre là Ablaye Wade ñu ko njëkk a indil fii. depuis deux mille lan depuis euh, bu ñu tëjee Madiambal Diagne. Mhm. dans les années deux mille juillet deux mille quatre oui boobu lépp toute la presse sénégalaise. bi doon un euh, un éditorial. comment euh, combattre le monstre face au monstre. la une noire. et quand on a incarcéré donc ça ça je crois que c'est pas une invention de Walfadjri c'est pas sorti de la tête également de l'imagination fertile de Cheikh c'est la presse sénégalaise moo ko génnee ce titre là et c'était pas destiné au président Macky Sall destiné. Euh, Euh, à qui à Abdoulaye Wade à l'époque qui oui, était le de la République exact. en 2002 2003. Exact. Donc là je crois que dire que voilà c'est <laughs> ñoom ñoo ko traité de monstre. Ça quand même bon ça ça c'est la presse sénégalaise qui parle comme ça surtout quand c'est liberté fondamentale telle que la liberté d'expression et d'informer est menacée. donc loolu y' a y' a pas de nouveauté ensuite Cheikh Niass n'est pas venu pour animer l'émission Cheikh Niass était venu pour nous informer que quelqu'un du ministère de la communication moo ko yónnee texto ne ko si vous si vous n'arrêtez pas l'émission tout de suite dañuy couper signal bi voilà loolu taxoon voilà la raison de la présence Cheikh Niass si hier sur le plateau c'était pour lire ça Et je ne suis même pas d'accord avec Cheikh quand il dit qu'ils ont tué Walfadjri, que l'enterrement est prévu pour euh, vendredi. je ne suis pas du tout d'accord Walfadjri du loo xamante ne da ngay ñëw rey ko léegi mu dee léegi no non no non Walfadjri mun na jéng rek waaye du laal suuf te amul ay enterrement ak ni mel on ne même pas d'enterrement Walfadjri est toujours debout Walfadjri vivra Walfadjri vaincra et c'est pas lui qui a construit Walfadjri ba ñuy samp Walfadjri di ko taxawal à la sueur de leur front et à leur sang moom nekk fi woon xamuñu ko woon xamuñu woon sax il deviendra quelqu'un dans ce pays et quelqu'un nag c'est aléatoire même de dire quelqu'un ak ay kilifa fii ay kilifa amuñu fi ay kilifa nga ñoo fi nekk voilà et on avance xam nga xam nga xam nga ñoom sax bon sur dans ce communiqué là il minimise la que au lieu de citer ce qui se passe ñu naan la situation politique actuelle mais cette situation politique là c'est pas Walfadjri qui l'a créée non c'est pas ce sont pas les journalistes de Walfadjri ou son PDG qui ont créé situation bi dafa am fu mu jógee cette crise là dafa am fu mu jógee lu ko waral luy coow li actuellement c'est pas diw moo wax lii wala diw moo diffuser émission bi wala diw moo diffuser image yi luy wax ji kay mooy kan moo indi situation bi nga xam ne moo lay Sénégal di dund actuellement mm-hmm. et quelle est la la situation bi nga xam ne lan la ñu war a créer tey ban waxtaan la ñu war a convoquer tey pour mën a sortir de cette crise là pour mën a restaurer le redorer le blason de la démocratie sénégalaise loolu mooy coow li mais c'est pas du way diw wax na lii diw at wax na lii diw wane na image bi mais wane image ça ne pas dire ça ça ne signifie pas waxal ñu génn mbedd mi di xeex. ñi doon xeex. c'est pas des images yoo xam ne Walf daf leen a fabriqué dafa tëju suñu bopp kii am génne ay images yoo xam ne Palestine la ñu xewee wala ñu xewee beneen wala ñu xewee Ukraine ñu génne ku ne leen lii mooy lii xam bu fekkoon loolu sax nga xam ne ñii dañu fabriqué ay images. Hmm. wala dañuy monter ay images. loolu man je suis d'accord boo monté image maanaam nga jël image boo xam ne xewewul Sénégal xewewul fenn fii si Afrique wala dañ ko importe depuis les depuis xaw ma l'Ukraine xaw ma Palestine xaw ma lan nga koy wone si chaîne de tele di naan lii Sénégal la xewee wala lii muy xewoon VDN loolu mën na ne am lu ne ne yow tu es en de fabriquer des images tu es en fait peut-être d'inciter à mais c'est des c'est des images yoo xam ne dañu gis ay leaders yi nga xam ne ñoom lañu doon maltraité on a invité le on l'a même pas invité le docteur Daouda Ndiaye qui est venu directement d'autorité de lui-même mm-hmm. pour montrer comment il était maltraité mm-hmm. comment nañu kii loxom ak ak fu ñu ko dóor ay ay ay nit ñoo ko dóor si bët ba gis nga actuellement en parlant je crois qu'il est hospitalisé quelque part dans une clinique la place mais loolu la wone te kooku sax woowuñu ko moom moo ñëwal boppam pour s'adresser aux Sénégalais en tant que candidat la présidentielle muy génn di manifester di ñaxtu parce que boo gisoon demee sax nga xam ne kii kii xeex taxul woon mu jóg parce que il tout de blanc vêtu. Mm-hmm. en tout cas ce que je dis aux Sénégalais moo di ne ces gens-là ne méritent pas nos larmes on doit pas verser des larmes pour eux c'est le contraire <laughs> Pape waaw non soxna wax nga affaire ji wax nga wax ji. fii y pas de mort y a pas d'enterrement. subhanallah. Walf vaincra Walf vivra. je vais le rappeler encore ça va faire très mal ku bañ ñu tuddee la transhumance transhumant bul transhumé. c'est très simple ku transhumé fii ñu ne la transhumant nga. ku fi nekk militant de la vingt cinq heures vingt cinquième heure ñu ne la militant de la vingt cinquième heure nga. ku fi nekk exécutant de base œuvre ñu ne la exécutant de base œuvre nga. saa euh, CNRA coupé nañu fii. waay ñu xam ne. mooy sunu organe de régulation moo nekk sunu kaw ña bañ ko ñu bëgg ko moom la loi bi wax ne que moom dana coupé waaye ka nga xam ne yoon mayu ko ko baa ko képp boo ko coupé ñu wax ak yow waaw munuñu jël nag seen doole googu nga xam ne moom la ñu yaakaar ñoom doole googu te du doole sax parce que la nga xam ne dañ leen ko dénk te te yàggatul le cinq février bu soobee yàlla doole googu daal di bu xet jógee fa dem feneen loolu nag nañuy bañ te loolu dina am. ak la ñuy wax yàlla na ko yàlla jeexal balaa le 27. non dina jeex incha allah rabi te lépp jig ñu. te gis nga soxna wa mhm. j'aime à le rappeler souvent la responsabilité bi nekk fii Walfadjri faw nga ñëw fii pour pour t'en rendre compte parce que bu doon rek ñun seeni lu xóor yi dañuy xëy di ko wax chaque jour. barki yàlla eh, wala saa yu ñu waxee lu xër am béjjën bu ñu waxee lu xëru nit rek béjjën sax saxu ci boppam mais am na ñi nga xam ne kon fu mu ne nii dootuñu mën a dox ndax béjjën yu bëri. wallaahi et Dieu sait qu'on en sait qu'on en sait qu'on en sait qu'on en sait mais je dis que de par la responsabilité yi nga xam ne moo ànd ak liggéey ba ñuy def euh, am na lu ci bëri li nga xam ne nag dañ koy moytu parce que nous ne pas des oraux nu ne sommes pas des vents nous ne sommes pas des des des incendiaires waaw. nous sommes des Highlanders. la ñuy def c' est le plus nobles métiers. mooy fexe ba gindi sa askan. la ñu xamul nga xamal leen ko te comme dañu nekk ak ngóor gu nga xam ne ñoom seen lépp dañ koy nëbb décret sax dañ koy nëbb waaw. waaw décret sax dañ koy nëbb kon ñooñu bu ñu amee ñu mel ni Walfadjri ñi nga xam ne dañuy génnee loolu du du leen neex. Ils vont pas nous détourner de ouais, l'essentiel, euh, euh Pape Jamais de la vie. Alors, mais on continue sur le débat où on était pour dénoncer li nga xamante ne moo xew Assemblée nationale. Mais, et ce qu'ils ont sont en train de faire au peuple sénégalais. mais fa laa si soxna Awa c'est-à-dire il fallait que tamit ñu wax tuuti un peu wax li xew tuuti ñu xam ne nag tamit.